lu tamma ma ko dama ne eh, Youssou Ndour bi nga xam ne mooy borom TFM mi daf waxoon ne waalo mar naan marul naan mais Sénégal léegi mar naan marul naan ndax lu ko waral mooy KMC 3 financement boo xamante ne la kenn xamul nu mu toll ci wàllu alal ñu suul ko ci suuf si moo tax nit ñi gisuñu ko te dëkk bu mu romb di nga am ndox la population di département de Mbour seen problème mu ndox dem Joal dem ba Ngéeñeen dem ba jas am naa yaakaar ne tey jii wax naa ko monsieur le ministre KMC 3 bi lu koy saafara ci lay bokk KMC 3 nekk na projet boo xam ne aussi jaar na suñu dëkk jaar na dëkk dëkk ndaw yaa nekk yëpp yooyu am na piquage bu ñu ciy def loolu la ministre confirmé na ma ko la ca ëpp solo nag mooy commune de ko 80 pour cent de la population amuñu woon accès à parce que pourquoi forage man fa defoon c'était forage bu 150 mètres cubes la woon château d'eau 150 mètres cubes muy jox 5000 euh, personnes ndox maintenant population bi dem ba soixante mille habitants donc ça veut dire kon loolu arrangé tu leen te au moment où vous je vous parle suba danañ mën a commencé ci ngexoo ndox mi mu mën a mandil soixante mille per habitants ci benn château d'eau boo xam ne mille cent mètres cubes la ak deux forages yoo xamante ne de deux cent cinquante mètres cubes donc loolu avancement la donc ñun département de Mbour gis nañu suñu bopp ci nguuru président Macky Sall gis nañu suñu bopp ci nga xamante ne nii mooy Serigne Mbaye Thiam ak Mansour Faye ba mu ko yoree kon problème mu ndox ci réew mi réglé wu na parce que lu tax mën na réglé mooy tey jii lanu suul ci suuf si bu doon doon koo defoon muy mel ni ay euh, ay poto lampe wala ay panneau solaire di ngeen xam ne kon le euh, le ministre et le président bi liggéey noonu ci ndox mi loo xamante ne alhamdulilah rabbil alamin di ko encouragé di ko wax ne na góorgóorlu ci wàllu ki nga xamante ne mooy assainissement bi fu mu nekk ni problème mu ndox bu réglé woo ba noppi assainissement moo ci def les eaux pluviales bi les eaux usées drainage bi yooyu danañ ko ci accompagner incha allah rabbi jox ko suñu xalaat ba problème mu au pluvial yi u au les eaux usées loolu ñu wutal ko yoon woo xam ne dana fa jaar loolu fu mu nekk nii loolu man dinaa ko dinañ ko conseil monsieur mi accompagner ko si ba nga xamante ne ni inondation bu ñëwatee danañ ko gérer noo xamante ne nii population bi du ci sonn.